allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu diine suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu ma xajam àdduna yàlla bu ma xajam alaxira kenn ku ci nekk métier ma nga ne ci ci yëngu yàlla na nga ci yokk ba yëg loo am yaa ngi ko murno te yàlla barkeel xale yi toll ci liggéey yàlla jox leen liggéey yu barkeel ñu toll ci njàngit yàlla gunge leen seen njàng ba nañ ci séntu yàlla defal leen ci lu kawe seen jot ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi war a dolli ñaan eh, war a dolli ñaan ndax al addu'a silahul mu'min waaw ah, te toll nañ ci jamono boo xam ni ah ñaan moo moo fi moo fi sës ndax yonent bi sallallahu alayhi wa fa mu tolloon keroog ba nga xamante ni eh, dem na ba gisatul Xadija bi taxoon arab yi di ko ruse dem gisatul woon Abu Talib mu dem ci ay waa kër nijaayam ñu dàq ko ba mu toogee ñaan nga mu toogoon fi ne jot nañu ñaan ko allahuma inni ashku ilayka duafa quwati wa qillata xilati wa hawaani ala nnaas ya rabbal alamina anta rabbi anta rabbul mustadafina anta rabbi ila man takiluni ila bacidin yatajahamuni aw ila aduwin mallaktahu amri yow ba yonent bi toll ci diggante gis ni àdduna bi fi mu nekk léegi ni yàlla maa ngi lay jàmbat ashku ilayka da'fa quwwati maa ngi lay jàmbat ni di nga ma jox ci kartan xam naa ni mënta dekku gaa yi fi mu ne nekk waaw da'fa quwwati wax li ma am ci pexe yi xam naa ni mënta dekku pexe gaa waaw yow nag yàlla yaay borom yërmande yaa moom àdduna bi yow yaay kilifa yi ñi néew doole. man nag sa jàmm bu néew doole laa ci ci laa bokk maa ngi nii euh, léegi nag damaa gisatul koo ma fi tegal ci zaaxir koo mën a dalale sama xel waaw foofu toll nañ fa ñu fi tegal ci zaaxir ku mën a dalal suma xel yàlla nag maa ngi lay yëgal ni maanaam ñaar ñi ñoo ma séq mbokk moo xam ni mi ngi may waaje yoole ak noonu boo xam ne yu may tëru boobu bi boobu xat na seetal ñaar yooyu mbokk mu lay bëgg a yoole ak noonu bu lay tëru foofu bu yàlla yàlla entouré du baax waaw kon yàlla nu yàlla xettali ci woon waaw kon ñaan googu dinañ ko bind ñëpp ñu koy ñaan parce que fi nekk jamono soxla na ko lool soxla ko lool lool lool waaw dañ ko bind ñépp ñu koy am damay ñaan nag bisub tey bi eh, kenn ku ci nekk na nga def ci sa xol na nga yéene bis bii tey fas yéene wuma ma maanaam lenn luy àqu nit ma jëfandikoo ko nga fas loolu sa xol waaw man daal dinaa fas yéene du ma ma lor nit mais dinaa dimbali nit ku ma mën am naa dimbali. yor sa xol nga boole ci nag junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci astaxfurla parce que ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu saalih yarfaaw yàlla nee na ñaan ñaan jëf moo koy yëkkati ñaan jëf moo koy yóbbu yóbbu ci yàlla bu mu yàgg boo ñaanee da nga koy accompagner ak jëf nañ ñun ñëpp ñu am yéene bi tey ji kenn ku ci nekk la ngay yëngu du ma ci lor bu may jaaykat dinaa fas yéene du ma nax kenn tey waaw bu may liggéey ci métier dinaa fexe du ma ci nax kenn bu ma nekk ci administration bi naa fexe bu may dimbali du ma nax kenn waaw la may liggéey dinaa ko jaarale ci yoon waaw koo romb nga gis ni am na loo ko dimbali dimbali ko te nga def lii te ñu ñaan yàlla yàlla nu yàlla xettali waaw soxla nañ ko lool waaye yàlla ñu yàlla TV la télé qui te pousse bi moo lay xalaat TV